jéggalu waa RFM matin Adji Mbergane Kanouté yegsi na coordonnatrice bu Macky 2012 la euh, vice-présidente groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar à tout à mu neex ñu mu naqari ñu nous devons rester légaliste mooy nañu delloo li nga xam ne mooy carte ndaw réew mi li mu moom wax naa la ki léegi nag nee nga euh, dafa joxe kàddoom xam nga nag en communication dafa am li ñuy wax gën a gën a xam vous êtes des éthique de conviction ak éthique de responsabilité moo <laughs> am na conviction yam mooy lii la bëggoon a def mais nag Macky sàll moomul boppam dañu nekk ci réew moo xam ne tey jii ñu jàpp ne moom war na mën a wéyal li mu liggéey ndax parce que nag fi mu nekk nii dañu salfaane bu baax li nga xam ne mooy la république salfaane bu baax li nga xam ne mooy la démocratie ba nga xam ne il faut ñu taxaw temm daal di défendre la république défendre li nga xam ne moom lañu fi am Sénégal mégalement également tamit défendre li nga xam ne mooy teg fii la restauration de nos valeurs mooy li nga xam ne tey suñu guide religieux yi waa jàngu bi nit yi diine yi moo la ñu liggéey booba tey ci Sénégal. madame te bu ñu seetaanee kat. dinañ dugal Sénégal ci loo xam ne day nekk jëye bu kenn bugg ko moo tax ñu jàpp ne la président Macky Sall mooy le choix de la continuité dañoo jàpp ne moom dañ ko gis comme koo xam ne dafa incarner l'espoir nekk homme de la situation moo tax ñu ne ñun jigéen ñi pour stabilité réew mi ñun jigéen ñi gannaaw bi liggéey bi président de la république def ci Sénégal Sénégal bu ci nekk gis ci boppam dañu bëgg véritablement que moom mu nekkaat candidat moo waral suñu plan d'action première activité bi. Mhm. avant avant cela je veux juste peut-être euh, placer une question ci wàllu wule madame euh, Adji Mergane Kanouté yow wax nga ko sànq ne nga en deux mille déjà deux mille onze xeex bi ñu bi ñu doon xeex pour. Euh, éviter peut-être troisième candidature Abdoulaye Wade éviter moor yi yi fa est-ce que l'esprit et la lettre boo ko jàngatee ci wàllu wule waruloon tax peut-être en en deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñu xam ni lu xewoon par exemple euh, deux lu mu indi woon ci wàllu conséquence bëgguñu ko woon suñu yegsee ci deux mille vingt quatre mu arrêté wu tànn peut-être keneen jàppale ko kooku dem pourquoi ngeen jàpp ni forcément il faut mu continuer avec les mêmes problèmes qu'on a connus en deux mille onze quelle est la rupture finalement. xam nga en parlant de conséquences c'est important conséquence bi indi ñu ñàkk bakkan en deux 2011 loolu mën nga ne troisième candidature la. mais jàppal ne mars 2021 fukk ak ñeent ndawu Sénégal ñàkk nañu bakkan te loolu troisième candidature indiwu ko. dafa am pause justement moo tax mu def le parallèle entre 2011 et 2023. waaw moo tax ma ne il faut pas ngeen def parallélisme bi jàpp ne ñàkk bakkan yi. non no je je sais pas <laughs> nañ bakkan fii ci mm-hmm. Sénégal mm-hmm. ci mars te lu ko fi indi appel à manifester moo ko fi indi kon nag y a pas de cause à effet je veux nga ñëwaat ci exactement mandat mandat bi 2011 euh, lu xewoon ci violence yi ak tey jii nii est-ce que euh, moom mii doon xeex peut-être pour ñu bañ a yegsi ci lu ñu yegsi woon en 2011 Abdoulaye Wade forcé mandat bi il est sorti selon ñi bëri par la petite porte est-ce que loolu waru koon pousser moom tamit moo xam ni en deux mille peut-être deux mille vingt trois deux mille vingt quatre war na pare après les deux mandats comme ñi bëri nuñ ko bëggee. waaw xam nga nag euh, dama lay wax ne la xam nga juridiquement bu dee le conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy le juge électoral légitime et légal nangu na que ne candidature Macky Sall. mais ça c'est l'esprit la lettre ñu bëri dañu recevable mm, mm. xam nga li ci des mooy nee naa la en 2011 2012 ba ñuy xeex ak Macky président ak candidat Macky Sall pour troisième candidature bu mu am ñëpp dañ ko doon xeex waaye bis bi conseil constitutionnel génnee ne ko ne mën na nekk Abdoulaye Wade am na droit troisième candidature. pourquoi ngeen doon xeex en 2011 ma ñëw ma ñëw dañu jàppoon ne. Ah. amatoon droit def troisième am am troisième candidature. Mhm. mais ki nga xam ne mooy le conseil constitutionnel ñëpp mu tënkuñu ba mu génnee joxe son avis le candidat Macky Sall dafa dafa nangu. li conseil constitutionnel wax. wàcc sur le terrain. Macky Sall bi ñu koy élire makisal bu ñu koy élire dem waxtaan ak askanu Sénégal. bag ba ñu jox ko seen baat ndax gis ngeen président Macky Sall dugg na si néegu ñax yi. dugg na si bu ñëpp defee nu ngeen di définir est-ce que alternance dina am ci ñu réew yi ndaxte ku nekk xam na bi ñuy euh, indi limitation de mandats c'est pour euh, favoriser l'alternance parce que xam nañ ni bu fekkee ni defuñu ñaari yooyu ñu bloqué ko. nit ñi duñu euh, mën a yegsi ci nguur gi parce que quand ku nekk ci nguur am na toujours beaucoup de ressources pour continuer di di fa nekk on a vu avant avant avant avant ci transition yi nit ñi nu ñu yàggee woon ci nguur yi. xam nga wax nga limitation de mandat ma renvoie toujours au conseil constitutionnel nous sommes dans un état de droit dëkk yoon la ñu nekk nous devons rester légalistes mooy dañu war a jébbal lépp nga xam ne mooy sunu sunu sunu yoon sunu càtt ndaw muy man di président Macky Sall di ñu ànd ak moom tey bu conseil constitutionnel génnoon ne candidature am valable recevable kon dañ siy tënku ndax dañu tënkoo woon ci conseil constitutionnel en 2011 2012 nous sommes restés cohérents ñun cohérence bi nga xam ne moom moo nekk si ñun ba tey si la ñu nekk dañu jàpp ne lors du référendum du 20 mars 2016 avec les réformes bi président Macky Sall buggee wàññi mandat wam de cinq sept à cinq ans kat doom la joxe woon. mais bi conseil na waxee ne mënul nekk moom candidat Macky Sall. lu te ngeen dugg ci technicalité juridique yooyu. da <laughs> cee nangoo c'est simple. Mm-hmm. non non xam nga man du ma dugg si ay termes juridiques. Ah, technicalité yooyu parce que sénégalais yi mm. bëgg wax ak ñoom de façon terre à terre ñu. comprendre wala léegi ñu ñu dem. terre ñu dem terre à terre terre ñu dem terre à terre. en 2012 Macky buñ koy fal est-ce que fale wuñ ko woon également sur la base de limitation mandaa ñaar. waa xam nga yow si dafa mel ni dégluwuma bu baax xam nga nee naa la dafa am lu ñu tënk muy la conseil constitutionnel. conseil constitutionnel mooy le seul juge électoral boo xam ne moo am sañ-sañu wax ne candidature bi daañu ko nangu wala duñ ko nangu. léegi bi ñuy bind bi ñuy bind constitution bi lan lañ waxoon l'esprit c'était quoi. xam nga d'éviter ñu def troisième candidature. dama lay expliquer c'est ça l'esprit si je me si je me souviens. c'était ça Alioune boo nekkee ci dëkku yoon da ngay jox ñi nga xam ne cër. nangul leen ñoom li ñu moom. mais ci bindim bi bu fekkee ni par exemple yéen tamit peut-être euh, yéen a bàyyi porof ndollu boobu. non euh, non non je veux dire porof ndollu boobu. porof ndollu boobu au conseil constitutionnel. Ah, ah. qui est comme j'ai dit tantôt. le seul juge électoral légitime et légal. Hmm. ñun ñëpp dañoo war a tënkuwu ci loolu. parce que président ma candidat Macky Sall en 2012 fa la tënku woon xam nga nag mbir mi lan la élection la ñu jëm. bu nekkee jàpp nañu ne Macky Sall newutu ci xolu sénégalais yi jàpp nañu ne Macky Sall mënul gagné élection kon wallaay ja kon nag kon jagul ay jagul xuloo jagul xeex jagul dóorante xam nga lu ñu war a def. Hmm. dem tranquillement dem élection kenn ku ci nekk. boobaa dina xam. kon ñaanaan ngeen seen président mu jaar ci noonu parce que gis nañ en 2000 en 2012 euh, Abdoulaye Wade forcé na troisième mandat bi il est allé aux élections il a été battu kon ñaanal ngeen seen. Euh, njiit wi mu def loolu même bu forcé peut-être euh, mu perte. Ablaye Wade forcé wul c'est la conseil constitutionnel moo autorisé moom moo ne sa candidature dañ koy nangu dafa recevable dafa dem askan wi jël seen kàddu daal di votal ki nga xam ne mooy la candidat Macky Sall ça c'est normal mais kenn forcé benn yoon bu doon dafa forcé conseil bu doon dafa bëgg conseil na ko munoo nekk munu fee am dans ce li ñuy wax dafa forcé mais sa candidature a été déclarée recevable et également le président Macky Sall foofu la bëgg a jëm moom jàpp nañu ne candidature am juridiquement déjà recevable au niveau amul kenn ku mën a porter le maillot à part euh, Abdoulaye Wade su a nekk ah, ah, euh, dama leen di xamal ne ñun au niveau de Benno Bokk Yaakaar amuñ plan B amuñ plan C amuñ plan D benn plan la ñu am. c'est quoi le problème muy pourquoi amu leen non le problème mooy quoi <laughs> non y aucun problème au niveau de Benno ah. le candidat Macky Sall daf fi nekk. à part moom kenn mënul kenn waaw d'accord am lu mu liggéey. Hmm. loo xam ne kenn ku si nekk teg na suñu bët. mais il n'est pas éternel suñu biir. gisagoo kenn ku génn. ne le cas Idriss le cas Idriss Seck. man du jàpp ma ne kaa la te bu ngeen gisee keroog yàggul dans la semaine jigéenu réew mi dem nañu seeti ki nga xam ne mooy la président Macky Sall. nangul nañ ko candidature ba ñuy dem ba ñuy dem parce que nangul lañ ko candidature am réew mi. waaw ma ñëw te ba ñuy dem ku ñu àndal le président de de réew mi. Hmm. président réew moo jiital ay jigéenam dem ñu seeti Macky Sall ci palais de la république. mais neewul nii mais neewul mais neewul nii que. ñoom adoubé nañ ko waxuñu loolu. am na ci sañ-sañ mais en tout cas li ñu gis dal na xel. tey bu nekkoon ne moom dafa ber bëgg ber yoonam. temps yëpp mi ngi ratisser large di di créer collecte pour 2024. Euh, mais ce qu'il faut retenir. Hmm. mooy bu doon ne moom la ngeen yaakaar ne moo na ca moom kon lan moo tax mu jiital ay jigéenam. ñu dem seeti président Macky Sall fekk fu mu nekk ci pale waxtaan ak moom saafante ak moom fëddali kóllëre. mais Macky ci boppam sax ba léegi waxagul ne candidat la. waaw Macky mais ñun ñun. Euh, xoolal lu ne mën naa am moom moom moom day dina ne candidat ba mu tax dina incha allah parce que ñi ànd ak moom dañoo bëgg mu ne candidat ñi nga xam ñu seen biir kër yi nga xam ne ñu leen ooyee les personnalités yi nga xam ne dañoo. mais moom mooy ndayu mbiligi li yéen la nga xamante ne. aussi waaw xam la euh, mooy ndayu mbiligi mais à de responsabilité. le président moomul boppam dafit nekk am ñu ko ñoo xam ne am ñoom cër ci moom. mun na ne man nekkuma candidat mun na ko wax. waaw mën na mais ñun bëgguñ mu yegg foofu sax moo tax ñun dañuy def benn suñu deuxième activité mooy lan aller dans les 46 départements avec les responsables femmes de Benno de la grande majorité dans les départements on on est on a on a travaillé une résolution résolution boobu la ñuy jël jébbal ko préfet des département pour pourquoi. parce que nous voulons inviter ki nga xam ne mooy le président Macky Sall dañ koy woo ci mu nangu li nga xam ne moom la jigéen ñi loolu lañ ciy boole préfet yéen a a ngi boole politique ak leneen marche la xam nga marche pacifique la ñuy demandé boo demandé def nga doon sañ am nga sañ di jox ab ba nga xamante ne ci candidat bi la yéen a ngi leen di dugal ci politique déedéet xam nga booy def ngay dem boo amee résolution boo téye mën nga dem xam si l'autorité compétente nga jébbal ko ko loolu c'est autorisé donc loolu la ñu bëgg a def dans les quarante six départements pour que président Macky Sall xam ne jigéen ñi dañoo taxaw nàmm candidature jigéen ñi également tamit ñun ay yaay lañu suñuy doom ñi nga xam ne tey ay primo votant lañu man am naa doom bu am dix huit ans war na voté ji. mais justement ñi nga xam ne ñun jigéen ñi primo votant yooyu waaw ñun jigéen jigéen ñi. Mm-hmm. ñu ñoo jur gone yooyu ñu invité jigéen ñi également waxtaan ak seen doom. ñu xamal leen li président de la république liggéey xamal leen également réew mi stable jàmm ji fi nekk yaakaar naa ne bu ñu nangu kenn salfaañi ko. justement ci primo votant yi gis nañ ñi bi ñu ubbee révision yi euh, bëri nañ ñi dem bindu ji te euh, sociologie électorale lu mu wone en tout cas euh, ci résul yenn résultats yi ci lu bëri jeunes yi dañuy voter souvent contre ki fi ne donc est-ce que ragalu leen. peut-être euh, ñu yóbbu leen ci yooyu. <coughs> non saa moom xalaatuñu ko. xalaatuñu ko parce que prime votant yi voté yi dem di inscrire massivement jàpp lañ ne mën na nekk ñoo xam ne dañu ànd ak le président Macky Sall parce que nag ñun dañoo taax dañoo dañoo jonction ak la jeunesse féminine de Benno moo jeunesse féminine boo xam ne tey ñoom tamit ñu ngi dem di waxtaan nag ndaw ñi. jeunesse féminine boobu rek ku ko jiite mooy l'honorable député du parti socialiste Yaya Diallo jiite jeunesse féminine de Benno de la grande majorité présidentielle ñu nag ñoom ñu nag les femmes de Benno et la jeunesse féminine de Benno dañoo joxante loxo depuis boobu ba tey di ci liggéey ñoom ñuy wàcc di waxtaan ak jeunes filles yi xale yu ndaw yu góor yi nag yaakaar jeunesse yu ndaw ñi tamit ñu ngi ciy liggéey. mais mais Adji Adji Mergane même bu ngeen même bu ngeen jàlloon tey jii yaakaar tey lañ gën a taxaw temm mhm. pour pousser leen ñu dem bindu massivement même bu ngeen jàll ragalu leen ragalu leen lu ñuy woowee l'usure du pouvoir parce que déjà au-delà de huit ans dix ans presque da ngay am lu ñuy woowee l'usure du pouvoir des métiers commencé ngeen ko sentir déjà à la fin euh, du deuxième mandat est-ce que ragalu leen bu ngeen engagé woon encore troisième mandat day gën a pire encore xam nga il faut ngay wax troisième gouvernance bi troisième candidature au deuxième quinquennat c'est important usure mënul am xam nga koo xam ne tey ba fi toogee ba tey. yaa ngi liggéey lu am solo. muy ci domaine bu nekk muy santé muy domaine wax naa ko équité territoriale muy li nga xam ne tey parce que équité territoriale bi nag wax naa leen ko sànq dafa amoon Sénégal bi ci kaw bu ci suuf li Henri Lopez di wax dans le pleurer les en wo d'en haut moo fi amoon donc Macky sàll bi mu ñëwee la gis ne tey jii ña ca àll ba tey. tey bu ñu nee ba am deux mille deux cent villages près deux deux mille deux cent deux villages électrifiés le président. ku ñëw di électrifier quatre cent quarante villages par an. ku ñëw def jéego rek alors la fi fekk. ku ñëw ku ñëw def jéego réew jërëjëf. xam nga kooku kon. yaakaar naa ne du ne jërëjëf ñu cëral ci waxtu. jeex na daanaka yéen moom amatu leen jot troisième candidature moo leen euh, sonal moo tax assemblée nationale gee dafa mel ni moom. déggatu ko kenn déggatu ca dara. assemblée ñu ngi liggéey nag di liggéey hmm. ànd ak sunu président l' assemblée nationale Amadou Mame Diop mi nga hmm. xam ne yàgg dañ koy wax toujours donc il a la légitimité historique il a la pour pouvoir mener li nga xam ne mooy à bien à bon port l'Assemblée nationale. jërëjëf ak tamit suñu président groupe parlementaire El Hadj Omar Youm. jërëjëf Adji Mbergane comme ni ñu ngi normal ci euh, Assemblée nationale. jërëjëf Adji Mbergane Kanouté coordonnatrice euh, Macky 2012 euh, nekk itam député ci Assemblée nationale nekk vice présidente bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jërëjëf Mouhamed Alioune Ba mi ma àndaloon ci waxtaan wi nuyu ak ziar sunu mbokk ya ca TFM ñu yendook jàmm. ginnaaw ba ci gu koor dara dàq. jërëjëf euh, de ci Diop ñu ngi koy euh, nuyu di ko ziar euh, ak équipe bu RFM matin tey nag ñu doon dalal ni mu ko waxee Adji Mergane Kanouté di fàttali ne ñaareelu pàcc bi ci kanam ñun tamit daañu dalal suñu gan bint baas la responsable jigéen ñi réew mi foofee ca ces Ouest moo tax a nekk suñu gan et puis Daouda Mine dina fi teew ci jàngat bi xam ngeen sànq ñu ngi doon wax également ci document bu am solo ci kanam tuuti daañu def taxaw seetlu bi ak Chérif Dia ak Malick Thiandoum léegi léegi ñu dem ci xibaar yi. yi ci yaatal ak Cheikh Tidiane